si at yi passé nag Gambien yaa ngi doon joytu si li jublu nag si njëg lu yokk bokk na itam si li nga xamante moo nekk bagage yi nga xamante moom la ñuy faral nag di dundee. li nga tay mo nek ay walum luwas walum solin walum li nga xamante ni moo nekk nag yeneen mbir xamé tay askan ba ko don dal di joytu si jamono ji nek liñ ñu dal di nemmeeku nekk moo nekk ciment bu ser di nak nek na ab jafé jafé bo xamné nak mo ngi dal askan bi na ñi nga tay seen loxo jottu seen gëna gannaaw te ñu bëgg tabax seen kër suñ mëna sukkandiko nak si ñeneen nit ñi nga xamante ñoom lañu dal di waxal ñom nak wax neen li waral nak ba tax ciment bi gëna manki fi ci bir réew mi ak gi nga ak jafé jafé jum leen nek di jural ci jamono ji Kan bi dafa seer ah, so gisee ñun youth maa ne ñu ngi bugg a sampa mënuñoo sampa because so gisee dëkk bi mu ngi over meti, dafa métti trop because ciment léegi four hundred four something man ñun driver la ñun kañ la ñoo dajale ba ñu mun sampa ah dafa métti trop loolu moom kaya ñu ngi joytu si government bi mu dimbale ñu mu wàññil ñu ciment bi as normal num mu gën rek. tabax ndax soo de xalaat dépense doo jël saako ciment four hundred and thirty wala three hundred three hundred and thirty xam nga yërmande moo war a am ci dëkk bi ñu seet suñ bopp soo manee sa morom manu waaye buñ topp man man man mën naa lu ma neex ma def président bi moo war a def contrôle su dëkk bi def ay si dëkk bi ñu topp marchandise Sidi Keita nek Minister of trade industry regional integration and employment mom nak waxna lutax itim li lay njëg nak continue di yok ci biir rew mi sima nak mel ni yenen products yo xamne te dañ ko faral di ko indi ci biir rew mi mom nak dañ ko jëlee yenen rew indi ko fi ci biir rew mi ci tamit dafa am yenen mbir yu ci dal nak daf mu nek processing time lo soxla pour ñu mën koy matal mu mën a dugg si biir marché bi ñi ñi nga xamante dañu nek nguur gi nak ñun den jébal yépp nak ci ñi nga xamante nak ñoo nek di yëngatu ci walum jaam ciment bi amul benn jafe-jafe bu ñu teg si seen kaw pour gis na ne duñ mën a indi ciment fii si biir réew mi gannaaw bi nga xamante ne ñu ngi bëgg a tim di support li nga xamante ne nag moo nekk local industries yi lii nag mu nekk njëlbeen yoon pour ma leeral si la mbir ñu bëri ñoo xam dañu yëngatu si wàllum ciment bi fii si biir dëkk bi yëpp sol ko si saako rek la liggéey bennam slam rek moo fi nekk ki nga xamante ne si jamono ji moom nag mu ngi yëngatu si wàllum processing ciment fii jafe-jafe bi nek ñu ko tek si li nga xamante nak mo nek nekk mbass bi di coronavirus kena bi nga xamante nak mom dafa dal nek nasaxal koom comme li nga xamante nak mo nek réew si jamono ji nek ñi nga xamante ñoy fa nak di jënd di jaayat ñom nak ñi nga am jafe-jafe si li nga xamante nak mo nek walu marchandise yi nga xamante ñom lañu ñuy ci bitim réew si jafe-jafe yi nga xamante moom la nit ñi di jànkuwante amul benn bunt boo xam ne nag mën nañ ko sukkandikoo si 1997 constitution bi boo xam ne nag trade ministre bi mën nañ ci dal di sukkandikoo pour dal nag teg askan bi si li nga xamante nag moo nekk price control